invitation bi ngeen ma invité teg seen. seen normal ma yëkkati micro bi. mu nekk loo xamante ni lu ma rafetlu la. ndaxte liggéey bi ngeen ñu def au niveau de la commune de Joal Fadiouth. gis nañ ni liggéey bu rafet la. Mhm. information yi ñu ngi jàll. Mhm. Il ñu dem à travers la planète. nous mhm. euh, jamono fekk suñu mhm. mu ñu koy rafetlu. Mhm. vraiment di aussi pour que ngeen def. ci ndax. Euh, télé euh, vraiment comme équivalent. DFM des des bi ngeen continuer di ñu invité. amiin amiin. moom la leen di ñaanal. amiin en tout cas yow yaa ngi ciy jàpp-jàpp bu rafet ah parce que vraiment tey du li ma ko invité mais gis nañ ni taayee génne woon nga lu am solo. Hmm. participé ko ci étoile jamono. vraiment ñu ngi ci remercier bu baax. bon loolu loolu man ah disons que c' est c' est une faible participation boo xamante ne dama jàpp ne. Mm -hmm. Euh, lu woo lu warul ñàkk na parce que mm-hmm. tamit boo gisee ay ndaw yoo xamante ne dañu nekk di liggéey di mm-hmm. euh, yoon la nga jàpp ci liggéey bi mm-hmm. parce que tey boo xoolee euh, fii ñi ñu nekk au la commune de Joal Fadiouth ndaw yu fiy jógee di dem bitim réew ñooñu boo xoolee dañu dem ba dañoo xàddi gëmatuñu seen dëkk gëmatuñu seen réew léegi boo gisee ay ndaw yoo xamante ne nag dañu toog fas yéene euh, liggéey fas yéene euh, ñafe mm-hmm. jàpp na fii mooy seen dëkk te fii la ñu war a mën a tekkee mm-hmm. ah, ndaw loolu ndaw yooyu loo defal loo leen defal de mm-hmm. war nga koo xeeb d'accord di leen fàttali Jules Aloyse tey moo nekk suñu gan moom nag moo jiite parti bii di écologie donc parti écologie mais nag dafa bind benn livre livre bi ah, livre bi nag kenn xamul Jules lan la ci bëgg expliquer parce que maa ngi gis mu def euh, réduire le chômage à sa plus

ñu gis ne euh, malgré que def nañ ay actions yu bëri def nañ ay programmes yu bëri. Mhm. Euh, ba tey le problème reste entier. Mhm. ma jàpp nag ne il fallait que ma jéem a comprendre lan moo tax ba euh, finalement problème bi solutionné wuñ ko. Mhm. bi may nekk ci gëstu depuis quelques mois. ci ginnaaw. ma gis ne vraiment problème bi en fait c' est une volonté politique. moom moo tax ba tey ñu toll fii ñu toll noonu gis nañ ne programme yu bëri ñëw nañ def teg nañ ko fi. Mm-hmm. par exemple boo xoolee du temps de euh, du temps de euh, comment il s'appelle encore euh, Abdou Diouf. Mm-hmm. indi woon na fi benn programme bu ñu doon woowee le le programme le programme des maîtrisables. mu mm-hmm. ndax yéen a ngi fàttaliku programme yooyu. ak euh, programme bi nga xamante ne moom lañ doon wax wooyee les euh, les kiosques aussi. ah les kiosques à pain xam nga yéen a ngi fàttaliku. loolu yëpp nekkoon ay programme yoo xamante ne injecté nañ ci ay milliards yu ñu jeex. Waye waaye tay, euh, on voit que en fait liy soxe ci économie Sénégal. Mhm. tay euh, xëy da ci nek lu am solo. Mhm. dafa am nak bimay def sama bimay def livre bi dafa am benn euh, étude boo xamante ne. Mhm. jot naa koo jot naa koo lire étude bi dafa ne tay bu ñu doon euh, jël en terme de priorité entre liggéey ak euh, euh la santé. ak l'éducation éducation lan mooy prioritaire. enquête bi dafa ne li njëkk a en première position. Mhm. Euh, liggéey la. manque de travail moom la nga xamante ne moom la yi di gën di euh, di gën di bëbët. Mhm. léegi bi ci bi ci euh, éducation. Mhm. après santé soog di ñëw. d'accord yaa une idée, alors moi jàpp ne bon l'Olu, ça justifie le fait que effectivement ñu avons a mën a gëstu ci lan mooy problème au ndaw yi. lan moo tax ñu et qu'est-ce qui n'a pas qu'est-ce qui n'a pas marché. Mhm. Alors, même tout déconnecte le livre, comme tu l'as si bien dit, mhm. réduire le chômage à sa plus simple expression. waaw <laughs> est-ce que du gaaru waale. xam nga loolu mos naa koo mhm. déggee. mos naa parce que effectivement nga def nii euh, xam nañu xam nañ ni lii vraiment. Ah, yéen ñii seetaan lii lii vraiment am ko réduire l'opposition lañ waaw euh, effectivement c'est un point de quand même que j'ai voulu que j'ai voulu faire au président Macky Sall. parce que bi mu jëlee pouvoir en 2012 on s'attendait à ce qu'il réduise le chômage à sa plus simple expression. Mhm. Mais en 2013, lors d'une conférence de presse, mhm. euh, parole. Mhm. mais il va réduire l'opposition à sa plus simple expression. mais est-ce que ni avez ko que vous la ko que vous mais parce que euh, Sall tamit que vous chômage bi mais xam nga euh, justement actuellement effectivement on parle de 29 milliards yo xamantene ne kenn xamul fu mu fu mu fu mu dugg. nga baal ma yëkkati micro bi loolu moom moo indi tay problème yi nga xamantene mom moom la euh, président Sonko am. Mhm. parce que euh, bi mu waxé né, am ben ben ben audit bu génne ben étude bu génne. Mhm. étude boobu day wax né en fait luubal nañ ñu ëpp milliards. Mhm. alors loolu nag ma jàpp ne dafa nekk loo xamante ne lu waroon dugg ci biir programme bi la. te yegsiwul ci programme bi. te tey on peut pas dire que le le product est un succès. c'est plutôt un échec.

donc euh, euh, kii bi euh, titre bi ma bi def ni uh-huh. c'est un titre vraiment pour que aussi. ñi nga xamante ñom ñoo wara ñëw jël ñànk réew mi peut-être que man lay doon. Uh-huh. pourquoi pas. Uh-huh. parce que man tamit comme tu peux comme tu le sais. je suis candidat aussi. à l'élection présidentielle. ma japp ne man livre bi livre programme la. c'est-à-dire que dama gis ne li ma war ma nek vision pour l'emploi au Sénégal. Euh, beneen pàcc kii bi nag euh, livre bi ñu ngi ko woowee ci suuf. Mhm. comment créer un million d' emplois verts. Mhm. xam nga aussi tey les emplois verts c' est des emplois yoo xamante ne. Mhm. ah bon ñu ngi koy taar aussi. te dafa war mën a ñëw. c' est dans l'air du temps. tout ce qui est emploi écologique. emploi environnemental. loolu yëpp dama gis ne finalement. Euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ils ont pas été à la hauteur pour pouvoir résoudre ce problème. Mhm. moom moo tax nag ma jël initiative li tuddee ko réduire le chômage à sa plus simple expression. Mhm. mais du gaarwaale nag. Mhm. vraiment du gaarwaale. mais c'est est un clin d'œil ko oh, wax nga ni candidat nga de. ah candidat parce que ki fi nekk moom opposition bi la réduire yow nga ñëw ni chômage bi nga kii. Euh, Jules Aloyse tey suñu candidat yi xam nga moom candidat la. Uh-huh. Euh, tey gis nga Sénégal fi mu àgg ci méttiwaayu dëkk immigration clandestine bi ak Jules la Sénégal ndax saafara loolu mën nga ko ah oui bon xam nga. Euh, ci nga koy d'abord un man dama jàpp ne ndóol gi dafa c'est une priorité absolue. Mhm. mais ndóol gi euh, li manque d'industrialisation de nos économies c'est-à-dire que boo xoolee euh, usines yi ñu fi tubaab yi bàyyi loon ba tey. bi mhm. ci bëri tëj nañu. Mhm. mais amul ay usines yoo xamante ne ay usines ay ay usines de rechange moom ñoo fi nopp. daa mhm. ngi dégg keroog sama benn xarit bu ma doon wax naan mais keroog dama doon dox doxantu ci euh, kilomètre 14 bi. mais nee na ma Sobowa rek moo fa desati. Sobowa may fàttali ne moom mooy usine bi nga xamante ne moom moo jaay sàngara bi. donc pour dire que. Euh, ñun on a. da ngay bañ ko jaay sangara ci réew mi. ah da ngay bañ ko jaay sangara ci réew non man bañuma ko jaay sangara bi. mais mm-hmm. pour dire que rek ne. Mm-hmm. ça traduit en fait un mal-être aussi. Mm-hmm. pour dire que luy dox la fii nii. ce que je déplore ah vraiment parce que tamit man ndaw yi maa leen di xaar feneen ci lu ñu mm, du naan sangara. fu ñu leen di xaar moom mooy ñu jox leen ay jumtukaay yu war a mën a tax. mais ñu mën a sukkaliku. mën a liggéey. ah ñu war a mën a industrialiser le euh, département yi nga xamante ne moom Sénégal am. Mhm. absence bobu nag moom moo indi ni euh ndaw yi jël gal yi di dem. Mhm. man nak bu ma dënkoon bi je pense que lolu moy nek sama priorité absolue. Mhm. c'est-à-dire nak lañu mëna def pour résoudre la question de l'emploi. lolu tax nak ma jàpp ne euh, une des questions centrales. Euh, euh, du développement du Sénégal. c'est l'emploi. et donc moo tax ma sëgg ci ci livre bi. Euh, gëstu ci euh, mu yóbbu ma ci ay dëkk yu bari mhm. parce que euh, yalla def na dem na xool Suisse li fay def li fay def. Mhm. Mhm. gis na ni Suisse par exemple. tout ce qui est les petites entreprises. mais fofu amna na fa doole trop. mais ñun les petites entreprises dañ leen joxul doole. mais aussi la formation professionnelle. formation professionnelle dafa nek lo xamantene ne lu na aussi. parce que ñep mënu ñu dem université. te mënu ñu créer. Euh, hmm. de la même manière que nous sommes fonctionnaires hmm. on est à 174 000 fonctionnaires au hmm. niveau du Sénégal pour une population de 18 euh, millions d'habitants donc j'estime que euh, il faudrait effectivement nous changer totalement de façon de fonctionner une des solutions nous, moyen, quels sont les débouchés hein, de l'emploi vert l'emploi vert par exemple tey boo ma ko doon expliquer man mi nga xam ni euh, xëy na sama français xóotul nga ni ma l'emploi vert l'emploi vert mooy lan. xam nga tey par exemple bu ñu xoolee euh, dans le domaine du recyclage xam nga tey boo xoolee mbalit yu bëri woon trop ci livre bi maa ngi ko ciy expliqué. Mm-hmm. boo demee Mbëbës. Mbëbës euh, boo fa boo fa am na ñoo xamante ne ils sont spécialisés dans les ferrailles. Mm-hmm. par exemple dañuy dañuy récupérer ferraille bi. Mm-hmm. di ko jaayaat usines yi pour usines yi war ci mën a defar par exemple.

ça nous lance carrément dans le monde de l'écologie. à travers la planète, tout ce qui est plastique par exemple, mais c'est du, matériel recyclable. Mm-hmm. Parce que le plastique, tu es mouche une année. Vous ne connaissez pas, On ne connaissez pas. Vous parfois, vous connaissez pas. Mais vous a 400 ans, tu souffres. Tu bires souffres. 400 ans. 400 ans. Mm -hmm. Mais il faut esclavage Sénégal, esclavage Afrique, 400 ans là. 400 ans, Donc je pense que. Vous euh, expliquer effectivement tout ce qui est économie solidaire tout ce qui est emploi vert. Mhm. Nous nous naa ko xaymaa noonu mu nekk exemple yoo xamante ne mën naa koo joxe. Mhm. lu nekk yoo xamante ne secteurs yoo war nañ ko mën euh, mhm. davantage. de manière à ce que nous créions ay emplois parce que si nous na fay usines yoo Nous ne ñoom loolu rek tout ce qui est matériaux recyclés moom la ñuy jël defaraat ko. Mhm. et puis ça crée des emplois. Mhm. partout à travers la planète pourquoi pas au Sénégal. D'accord. mais est ce que c'est rek alors Lulu, mhm. par exemple le pluie, euh, par exemple, euh, le domaine du sport, par exemple. Moi, je mhm. trouve que le domaine du sport est mal exploité. Mhm. on a un potentiel extraordinaire euh, au, niveau de la jeunesse. Mhm. c'est encore sous-exploité. Car bien même que nous avons fait la Coupe d'Afrique bi fi il indi. a yaakaar qui aussi ligue bu mais je pense que l'économie du sport c'est une économie bo c'est encore sous-estimé. ma également l'économie numérique l'économie numérique fait dans les années 40, dans les années euh, euh, par exemple dans les années 80, mhm. entreprises yi dans le monde. c'est des entreprises du pétrole. Mhm. ngi mhm. mais tey entreprises yi gagnent des entreprises comme Facebook. c'est des entreprises comme Amazon. C'est des entreprises qui euh, elles sont dans le domaine.

Nous spécialisons dans des domaines d'activité bien précis man ma on doit s'engouffrer dans cette euh, euh, comment on appelle ça euh, dans cette économie mhm. pour pouvoir aider nos jeunes à trouver des emplois mhm. mais l'État le cadre mhm. c'est le cadre juridique le cadre administratif ah, qui va permettre à nos jeunes de pouvoir justement exploiter ces domaines c'est des domaines qui sont encore méconnus boo mën naa ci yokk ak yeneen ah. mais dinañ ci ñëwaat xam naa. d' accord mais ndax jàpp nga ni tey euh, ak programme bi nga indi. Uh-huh. mool bi lay seetaan du am problème. parce que tey boo waxee jafe-jafe napp gi lañ lay wax. Euh, courant bu cher bi dund bu cher bi. donc yaa ngi créer ay emploi mais wul tamit économie bi li dal ci kaw askan bi dégguñu nga wax ci dara. da nga ci amul solution. li li dal ci askan bi comme la yëg ak immigration bi.

parce que tey boo les accords de pêche yi nga xamante ne moom Union européenne signé ak ak Sénégal. Mhm. mais accord de pêche yooyu dafa ñëw totalement suñu économie maritime. Mhm. totalement. Mhm. parce que bu la par exemple 10 000 tonnes de de thon le numéro war a par an. ñoom ñoom tubaab yi. ñoom tubaab yi ak mille tonnes de merlu. sans compter yi nga xamante ne les Russes. les Chinois ñooñu ñëpp xam nga boolewuñ ko ci et pourtant ñooñu bu ñu ñëwee fii ay ay charité la ñuy mais bu ñu ñëwee bu ñuy mais li New yóbbu ci jën kenn xamul lu mu mhm. donc forcément day am un impact sur le côté. Mhm. Euh, sur le côté social sur le côté de l'emploi mhm. mais sur l'économie de manière générale sur l'économie de la pêche. Euh, loolu maa ngi koy expliquer ci ci ci ci livre bi. livre bi également ay solutions Dès nag ces accords là nañ leen arrêté. parce que de ah oui c'est une véritable hécatombe parce que tey actuellement ni euh, ñi yeewoo ci petite côte bi. mais ils il se rendent compte que les femmes transformatrices de de poisson. Les hmm. léeg dañuy toog semaine yoo xamante dañu gis bien sûr xam nga loolu moom presque tout le monde le sait. Hmm. alors donc mu nekk euh, mu encore des problèmes. Hmm. tey on est sous la petite côte. am na ci ay usines yu bëri yoo xamante ne des usines de transformation de farine. daa ngi mais usines ont déjà li capter rek en terme de poisson. mais loolu beneen affaire et puis ñoom yuus bi la utiliser donc USB, bi moom mooy maturité. Mhm. donc au lieu nous jël ko ko. Mhm. Mhm. pour faire des sardines. def transformation de de de comment on appelle ça. de de euh, poisson. pour utiliser pour d'accord C'est vraiment au Sénégal Ce ci boppam. loolu mooy expliquer actuellement. vraiment le fait que les parce que kenn toogatul kenn toogatu fi lolou deug la donc xamna nañ ci ñëwaat euh, livre bi nak dina wax livre bi ku ko bëgg far nga koy amé alors livre ku ko bëgg Harmattan dina ko jaay. Mhm. Euh, man aussi amna ay euh, ay ay jeunes yo xamantene de mhm. à la fin de l'émission émission dinaa joxe numéro bi. mu ma ko permettre non mun ko joxe mun nga ko joxe. waaw bon 78 162 70 12. Bonne 78 172 70 12. livre bon mën ngeen ko am. Mhm. mais à partir du mois de décembre. Mhm. damay dem France pour yobou ko Amazon. Mhm. pour que mon nez à travers.

Euh, ñu des dépenses de fonctionnement de l'État. état. nous avons nga xamante euh, dépenses de fonctionnement de l'État, nous mhm. ñu injecté ko ci xëyu ndaw yi. Mhm. ministre de l'économie et des finances. Mhm. bi lancé lancé feuilles. ndaw yi. dafa jël parole de 2010 à 2022, l'État a état bi dafa injecté milliards de francs CFA. qui euh, mbirum mbirum mbirum bi. de manière générale léegi yow loolu boo un rapport bi tu te rends compte que entre 2010 et 2022 l'État a eu comme budget presque 40 000 milliards. Mmh. presque 40 000 milliards. Mhm. léegi boo jëlee rapport bi ça fait même pas 2 pour cent. Mhm. yoo xamante ne état bi jël na ko dugal ko ci biir euh, ci euh, ndaw yi. Mhm. un échec extraordinaire. donc xaalis bi nga xamante mom lañu wara jël dugal ko ci biir xeyu ndaw yi. xaalis boobu moom moo soxal moom la euh, jël dugal ko ci xeyu ndaw yi. motax nak may proposer par exemple le budget de la présidence, c'est le budget de la présidence, 71 milliards. C'est mhm. 71 milliards. Barina trop. 71 Franchement, Le Conseil économique, social et environnemental, mhm. c'est un budget de 8,5 milliards. Mhm. Euh, le Haut Conseil des collectivités territoriales, c'est presque 7 milliards. Mais pourquoi nous avons nous organisé, nous fusionnons de manière à ce que, si nous avons 10 ou 20%, mm fait nous avons dugal ko ci biir euh, ci biir xëyu ndaw yi. Mhm. parce que ci biir maa ngi wax euh, lu ñuy lu am solo. Mhm. lu may wooyee le fonds écologique pour l' emploi au Sénégal. Mhm. le fils fonds écologique pour l' emploi au Sénégal. léegi xaalis boobu yëpp nga xamante ne moom la ñu jël récupérer ko. ci par exemple oto yi nga xamante ne ci administration yi. da nga gis ay oto yoo xamante ne presque ay oto yu bees tàq la. mais oto yi dawatuñu. yaa ngi dégg. nga tey bi ñu la nee par exemple le gouvernement du Sénégal utilise par exemple. Euh, euh, en, termes de décence, 40 hein, mhm. milliards par an. Essence. Essence Essence. 40 milliards. 40 milliards par essence. yaa ngi dégg euh, boo de ministres dañ leen 1000 litres d'essence, essence. Mhm. député députés dañ entre 400 et 500 litres d'essence, mhm. mais est ce que soxla nañ loolu d'un noir franchement. Mhm. léegi loolu man dama jàpp ne dañ ko war rationaliser. Mhm. bu ñu ko rationaliser indi ko dans ce fonds là nous koy woowee de fonds écologique pour l'emploi au Sénégal. Mhm. c'est unique hein. c'est un fonds unique nekkul loo xamante dañu dem jëlee ko ci bitim réew. dañuy toog xalaat ko jàpp ne. c'est un fonds bon, non seulement ça peut être écologique mm -hmm. parce que tu ku par exemple réduction euh, du carburant ku par exemple euh, réduction des dépenses de l'État en termes de déplacement à l'étranger pour des conférences lay fàttali que ne état du Sénégal mm -hmm presque chaque année dina dépenser lu ëpp 20 milliards ci ay déplacement à l'étranger loolu dafa nekk loo xamante ne bu ñu jëlee euh, xaalis boobu yëpp mm-hmm. ñu dugal ko ci biir fonds boobu tuddee ko le fonds comme je l'ai dit euh, écologique pour l'emploi au Sénégal mm-hmm. yaakaar naa ne dinañ dépasser li nga xamante ne moom mooy euh, le taux de 22% pour cent bi nga xamante ne moom la ñu mom lu ñu am actuellement ñu war ko réduire aujourd'hui mhm. peut-être à 5 c'est possible et demander tout à fait ce qu'on appelle le plein emploi Il man fofu la bëgg ñu dem Sénégal mhm. le plein emploi mhm. manam tay vous jëlé 100 ndaw 4 ou 5 pour mhm. mhm. ce qu'on retrouve dans certains pays développés. Dans mhm. France ñu ngi ci 9 pour cent. Suisse ñu 5 Dans cent. ci Allemagne ñu 4 5 tu vois tu me diras ay dëkk évoluer là. mais dama jàpp ne aussi on doit être ambitieux dans la politique de l'emploi. si on bu ambitieux il y a quand même yegg si foofu. Moi, tax ma jàpp ne il faut totalement innover. changer de paradigme. indi lu mais en conformité avec ñun lu ñuy faisons. tu vois mais est-ce que es un ministre, mm a besoin, mm-hmm. de vous à l'étranger, mm -hmm. 250 000 francs de perdion par jour. 250 000 francs Par jour. Perdion Perdion, par jour. T'es bon de monter France. Mais est-ce que nous sommes en quand même Oui, nous sommes c'est une réalité. Mais mm -hmm. c'est basé sur, euh, euh, une circulaire Le ministre Moko Moko Guinée, signé que tu souffres, contre signe par le président de la République.

je pense que avons une solution bu avons ndax affaire. Mhm. peut-être qu'il faut faut parce que tu es la par exemple ministres trois autres est-ce que mhm. soxla non non non non ah? franchement. par exemple que ministre bu ñëw day mhm. directeur aussi. mais est-ce que nous fonctionner. na il y ngi direction ñu koy waaye direction de l'optimisation de l'État mhm. moom moo war a dem xool saytu ñi euh, département yi nga xamante ne mhm. yàq xaalis dafa bëri mhm. ñu récupérer xaalis boobu djol ko dugal ko ci fond bobu mhm. tuddee ko encore une fois le fonds écologique pour l'emploi au Sénégal. macha allah am solo tay mom wax na nañ ci économie lu yaatoo yaatoo xam naa waroon nañoo laal ci politique mais bëgguma émission bi xababal trop parce que limu développer dama bëgg askan bi consommer ko mais gis nañ sa combat yu bari bitim rew mhm. nga def libérer Sonko xamna naa ne ci mune ñamal tuuti rek. euh bi sa gis-gis. alors ci Ousmane Sonko ni ci kasso bi. bon c'est vrai politique yi. vrai que en fait. nous sommes top dans ce sa titre bi. waaw te ñaanaluñ la ko nag. ah mais nag. mais am nga fit quoi parce que gis nga gars yi. mais nag sëñ Njeri. man dama jàpp ne politique boo koy def. mais yàlla boo ci topp quand même. non non mais bi nga ne am pas def na am. man actuellement nii. ragaluma dem kaso ci loolu. walaay ragaluma ko. non yàlla man sama conviction laay wax. man ni ma sama gis-gis laay wax. doomu réew mi laa. te dama japonais ne man dama war am sama dama am position ci réew bi mhm. di def ay proposition ci mi mhm. donc euh, je pense que bu naree am tamit ma xam mhm. mais comme tu l'as dit effectivement dem à Genève dem à aux Nations Unies euh, avec Nathalie Yamb que tout le monde connaît euh, avec de nos amis PASTEF en tant que membre de la plateforme plateforme F24 dama jàpp japonais Sonko tey nañ ko teg du yoon te dañ ko war a mën a libérer ndaxte fi Mhm. actuellement mhm. c'est un opposant mhm. certes c'est un opposant qui a des prises de position peut-être radicales mais notre démocratie dañu nekk yaa ngi euh, démocratie comme disait Ablaye Wad, on ne peut pas faire de démocratie sans démocrate C'est ce Ablaye Wad wax te li ñu avec le régime en place ça confirme les dires du président Ablaye Wad. Je dama ne ñi nga xamante ne ñoo en face de mon ils ne sont pas assez démocrates. Mhm. le président Macky Sall il a soulevé en 2011 des paroles beaucoup plus violentes on va aller déloger. Mhm. le président euh, euh, Ablaye Wade. à mhm. mais tu es tenu ko. Euh, je ne vais pas revenir sur le fait que par exemple Karim Ward tenait une justification. pourquoi pour des questions purement politiques. Khalifa Sall tenait une justification encore pour des questions purement politiques. aujourd'hui tey gis nañ ne mais quand même ba ngeen ci paar opposition parce que instant bi kenn ku nek da dawali bopam non xam nga li nekk bolo bobu tamit ñeeg ñàkk ñak li bi. non xam nga actuellement ni dañu nek ci période de connect. da mm-hmm. ngi dégg collecte de parrainage. Mm-hmm. donc période euh, collecte de parrainage actuellement ku ci nek yaa ngi concentré wu ci lolu mm-hmm. ce qui est tout à fait normal. mais tay opposition bi mu ngi réunir. Euh, récemment xam naa dégg nga fit bi gars yi teg léegi. le le le front contre euh, le front pour l'inclusion et la mhm. transparence des élections. Mhm. Que, que, mon ami euh, euh, Bougan Bofondeki d'ailleurs, mhm. je vois également que euh, des gens comme Mamadou Lamine Diallo Bokoneti. Donc, opposition, nous n'est que des organisateurs Bon, il faut aussi reconnaître que vraiment, l'État a a un terrain d'expression. Euh, mën nous permettre ñu nous wax. de nous voir, ñu def ay manifestations. parce que depuis le 12 mai. 2023 ci lañuy ñuy gën def ben manifestation bo xam manifestation de taille la. d'accord dañuy ñëw def mm. euh, def suñu demande. Mm. mais à la dernière minute qu'est-ce qui se passe. Euh, le euh, préfet dañuy naan c'est euh, ça n'a pas été autorisé. Mm -hmm. en en invoquant tout le temps. Mm -hmm. euh, des troubles à à l'ordre public. Hein. <laughs> alors que amul benn manifestation Mohamed, xamante ne def nañ ko fii. Mm-hmm. bu mu am ay bu mu am ay des troubles à l'ordre public. D'accord.

ma il faut que tu ñu commencé beaucoup ci dynamique écologique. Mhm. et je pense que chaque personne je dirais même chaque personne. Mhm. est écologiste dans son âme. Mhm. yaa ngi a yow écologiste écologiste là, parce que yow sa gis a bu buy bien sûr par exemple si sa di il faut que nous cette problématique écologiste là euh, def une réalité. Il def ko une réalité. Je mm-hmm. wax aussi di ñaax le président Macky Sall aussi. Mm-hmm. les euh, détenus politiques. ngir yàlla na leen génne. mu génne leen ci kaso vraiment na leen génne ci kaso mm-hmm. parce que euh, wax sa opinion. waruñ cee mën a nit. bien sûr c'est un recul démocratique boo Sénégal daf cee nekk. te ma je trouve que euh, malheureusement. le régime bi imposé. Je pense ne nag vraiment on doit sauter le pas aller sur autre chose. ñu réfléchir développement. mais aussi ñu jël euh, la problématique du chômage comme une vraie question Euh, je dirais de de de de, de problématique nationale. Mhm. ñu jël ko mu nekk une priorité nationale. Amna na solo jërë ngeen jëf mu nekkoon euh, étoile jamono ñu ci doon ànd ak tey kilifa gu mag nekk Jules Aloyse euh, mu livre am bu fat solo bi ñu numéro képp koo xam alors numéro bi 78. 162. 70. 12. ayca kon nag muy nekkoon noonu étoile jamono xam naa dinañ la dalalaat ci lu gën a yaatu. incha allahu rabbi waxtaanee réew mi waxtaanee tolluwaay réew mi ñu leen di jox dig daje ëllëg ci beneen numéro incha allah.